برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان alal jox la ay xéewal may la wér ngay catang catang di tëb di dal ñii sax ay boxeur dañu doon ñi nekk ay mbëri làmb ñi nekk ay euh, athlète de haut niveau nekk jullit yàlla jox la alal bu ñu waxee nga ne du ma parce que xale la damay xaar ba dem ba nekk mag parce que ñoom pour ñoom jaamu yàlla mag rek moo koy def yàlla ne ku def loolu wedd nga li ma wax man teg nga samay wax waaw mun kafara boobu mooy dangaa tegg samay wax teg fële demal aji jox naa la kàttan jox naa la alal mën ngaa dem nga bàyyi ma fi naan damay dem Bercy dagg bi avion mën a dem dagg bi avion dem Màkk mi mën ngaa dagg bi avion dem Bercy mën ngaa dagg bi avion dem Zénith mën ngaa dagg bi avion dem nepp noppalu ci ci ci ci kii nu mu tuddati dem Cannes walla nga dem Amérique wala nga dem fu nekk ci àddina bi dem def yooyu yëpp mën nga ko coono ak coono fecc ko gën a métti coono ak coono athlète yi ñoo ko gën a métti coono làmba ko gën a métti yaa ngi koy def waxtu nekk yaa ngi sonn yaa ngi daw boo xëyee takk say godaas di daw wëndeelu fu ne nga daw fa nan da ngay football ak lu nekk nga nekk ci waaye sa dërëm moom du dem ci yàlla loolu lu ñu war a seetaat la nekk ab politicien doon noppalu yaa ngi ci avion yi fu nekk nga dem fa waaye aj moom nga ne doo fa doo fa dem kon bu boobaa yow yaa weddi yàlla yaa weddi tëral yàlla yàlla nag képp ne na képp ku def loolu nanga xam ne man doylu naa walis la maanaam man soxlawuma la nga ajal maag nga ñàkk aj sama yoon nekku ci lii jëriñ ci yow lay dellu boo ajee njariñ la ci yow lay dellu waaye dellu siwut ci man kon téye sa xaalis toppal sa làmb toppal say baal defal lu la neex waaye xamal ne man moom génn naa ci yow kon lii mooy xutba bi xam ne moom la sëriñ bi def ci aj yaatal na ko te indiwu ci waxu boppam lu may lu néew su ko indee rek mooy pour orienter la waaye waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la indil indil la itam ay xadis yi nga xam ne oo indil la itam ay aaya yoo xam ne yàlla moo ko wax kon nii la bàyyi doon xutba ci yowmul juma buñ nekkee ci période yoo xam ne période aj la dana ko def ba nit ñi aj gi jeex nii la koy defee di wan ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci aj Euh, ki ko yoon wax nag wax dëgg yàlla moom ajkat la lim aj bari na ay yoon yoon yoon yoon kenn mënu koo lim waaye aj na lu bëree bare bare bëri euh, ci aj yu jafe yoo xam ne aji sunna la aji boroom xam-xam la ba ajam bu mujj gi euh, moo sànnil boppam jamra te boobu wéra dina moo jëlal boppam dem di sànni jamra bañ xaañ ko ba mu naan ramaw nii la daa ramil jimaari wa axtahu ana diddu iblisin walam aku ab raxu walam aku ab raxu nee na sànni nañ ma xaañ ma bi may sànni jamra xaañ nañ ma sànni ma foofu jam ma waaye ki ma jam dafa juum ndax iblis lañuy sànni te man maay contraire iblis man maay contraire iblis iblis noonam man la maanaam lépp lu iblis bëgg ak fa mu jëmee nit ñi man safaan bi laay def man safaan bi laa bëgg mooy jëme ni ñu ci yàlla yóbbu leen ci xéwal yàlla yóbbu leen ci mbaam yàlla yóbbu leen aljanna ñëpp tedd ñëpp baax ñëpp jub loolu moom mooy sama mission moom laay def iblis nag yàq nit ñi toroxal leen euh, sori leen yàlla looloo ko tax a jóg bàyyi moo tax mu ne ana dudduhu ana dudd iblis kon ki ki ma sànni jam ma te waroon ma sànni iblis dafa juum muy waxin bu rafet kooku moo def xutba gi aj na ay aji aj Euh, ajal na ay nit ay ay ñu bëri yóbbu leen màkk ajal leen te aj yëpp dama ne da koy sonnee di def li ci war aj gu nekk rek téere la ci aji bàyyi kon ñu doyloo loolu euh, ba beneen yoon ñu dellusiwaat ci yeneen xutba yi nga xam ne moo ko xutba euh, ci beneen munaasaba ak lam ca wax ñu faram-fànce ko leeral ko jaam yi loolu balaa booba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان